dal leen ak jàmm seen seen bii di NGTV Sénégal kii di Clédor seen nekk ci njiital mouvement bi ñu dippee Clair Vision yëkkati ne ay kàddu daal di àddu ci luñ jiñ kii di président Ousmane Sonko ne kookee tey jot ay financement obsculte yu tolloog vingt millions d'euros te li mel boo ko xaymaa en franc CFA mu jox la douze milliards ne si li mel na ci yoon daal di def liggéeyam kii di Clédor Sène ne lu kii di Matar Diop daal di jiñ kii di président Ousmane Sonko am na kaa bu mu doon nurool ci réew mii di Sénégal te mooy ba kii di Cheikh bu Soumaré nekkoon fi ancien premier ministre publié woon ci post Facebook am te foofee mu sampoon fa laaj di laaj kii di président Macky Sall ndax jotut ay don yu bàyyeekoo ci kii di Marie Le Pen te ne don boobee ci publication wu laaju kii di Cheikh bu Soumaré bi tolloon ci douze millions d'euros te loolee boo ko xaymaa ci franc CFA mu daal di lay jox sept milliards ne loolee sababoon na ñu daal di jàpp kii di Cheikh Abibou Soumaré daal di koy placé en garde à le 7 mars bi ñu génn ndax ne ci mbir moomee procureur de la république ba woon dafa autosaisir wu ndax kookee dafa sampoon a laaj kii di Clédor Sène ne kon lu war procureur de la république actuellement ci réew mi di Sénégal te muy Abdou Karim Diop mooy que mu daal di autosaisir ci tuuma yooyee kii di Matar Diop daal di jël daal di koy teg ci ndodd kii di président Ousmane Sonko. ne si li ni mel bu fekkee ne kii di Matar Diop day wax rien que pour tiwmaal kii di président Ousmane Sonko kookee nañ ko daal di daan daan yu métti ci réew mii di Sénégal nee tamit bu fekkee ne lu kii di Matar Diop lu muy wax dëgg la nañ jël ay daan tamit daal di koy teg ci ndodd kii di président Ousmane Sonko. ndax cooloolee jaar seen diggante romb na seeni jëmm waaye lu jëm ci suñu sécurité nationale la moo tax ci li ni mel dafa war leer ci bëtu Sénégalais yépp kàddu yu ni mel la kii di Maître Clédor Sène daal di yëkkati jëmale ko ci coow li nga xam dafa jaar ci diggante kii di Matar Diop si lum tuumaal kii di président Ousmane Sonko.